waa mais gars yi kañ ngeen di wax ci doomu Khalilou Fadiga bi équipe nationale Sénégal ASC da doon wax naan amul latéral droite de métier en ce moment là doomu Fadiga bi dugal na deuxième bi saison bi ak la Gantoise mu ngi en forme boo xam ne nii Pape Matar Sarr salaam gars yi na la ko ci nekk seen tur ak seen sant doomu Fadiga bi na ko ñëpp partagé ñu xam mu ngi def lu dara jarul jot nañ ko fa convoqué bu benn du ñaar jotul football benn minute xamul lan la ñu mën a apporter loolu laa gën a bañ ci équipe nationale Sénégal loolu rek ma ci gën a métti bii paa nag s'il vous plaît. liste bi di ñëw gone gi ñu ngi xaar nu muy mujjee tey bu ngeen ko wooyee dootuma waxati Aliou Cissé woo wala ak yooyu nag actuellement Aliou Cissé contrat mën naa ni jeex na équipe nationale Sénégal ba nii relevé guñ ko moo tax du ma wax Aliou Cissé woo équipe nationale Sénégal bu ngeen woowee gone gi na ngeen ko teg nga xool quelques minutes la la leen mën a apporter ma Matar Sarr tey dugal na premier biom ak Tottenham après ba mu manqué temps de jeu Europa League ñoo karab 3 buts à 0 la Tottenham dóor Pape Matar Sarr moom it dugal bii boo xam ne nii benn centre la ñu delloo ko moom deuxième ballon bi dóor ko bal mu ngi noonu mu doon joueur boo xam ne en ce moment là soxlaa nañ mu retrouver forme am ak confiance am yàlla na ko yàlla defal. ñu delluwaat ci kan kookee di Noah Fadiga gars yi Noah Fadiga bëgg naa ñu wax ci ay mbiram en ce moment là retrouver na temps de jeu foofee ca la gantoise mais yamaatuñu foofu yamul ci euh, ni muy apporté mais mu ngi dugal. mu doon joueur boo xam ne il est très important euh, très intéressant ci club am boobu nekk foofee ca la Gantoise ak Aliou Cissé jot na ko woo maintes fois mais jotu ko teg benn minute te man loolu laa mënta d'accord équipe nationale Sénégal woo jour indi ko mu nekk ñaari sélection ñëw ko aller retour mu dem te jotul football benn minute xamul la lay apporter balaa caag nga bañ koo woo Aliou Cissé tàmm na koy def Arial Mendy et tant d'autres joueurs bi avant mu koy teg toog lu yàgg teg ko. après au finish booy xamul sax bu loolu bi la ko mën a jàppale. et tant d'autres joueurs yoo xam ne ni bu ñu fi doon lim duñ fi jóge kon nag gone gi bu ngeen demee ba di ko xam leen xel la ni am na lu ne ci moom kon nag teg leen ko ñu mën a xool lan moo ne ci moom ak lan mën a jàppale actuellement amuñu latéral droit de métier Youssouf Sabaly jël na retraite Krépin dañ ko suspendroon maintenant Formose moo fi nekk dañu obligé def ay 3-5-2 yoo xam ne tu ne le maîtrises pas nag amoo ay latéral latéraux kon nag jëlal koo kii di Noah Fadiga nga mën a teg sa benn 4-3-3. classique pointe basse nga mën a jàppale équipe nationale Sénégal mu jëm ca kanam a kanam mu doon loo xam ne ni demande nationale la Sénégal njaay ñëpp a ngi koy laaj kon nag Aliou Cissé ngi lawaay bàyyil dëgër bopp bi est ce fi toogaat ba ma naan la di la ñaan mu ngi noonu ak keneen képp ku fi mën di toog boo ko wooyee jéemal xool nooy mën a indiwaat booy bi nag il a du talent te mu ngi wane lu dara jarul man nag gis naa loolu j'ai vu ça depuis saison bi deux matchs de il a marqué deux buts avec la Gantoise. mu ngi noonu mu ngi def lu uh, am solo vraiment mu ngi noonu gars yi mooy na xaar commentaire yi man ngeen ko gisee képp koo xam ne nag abonné gu ma suma chaîne YouTube bu ko taay bësal bouton s'abonner bi ngay like di commenter di partage loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax a baax merci à vous jàmm ci yéen beneen yoon ci yeneen vidéo caa ngeen jëf.